إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بكو جلدي نيجي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى mboolem xéewal yi nekk ci ñun muy àdduna ak àllaaxira ci moom dong la jóge ñu ngi seede ne amul kenn kuñ ko war a bokkaaleel ci jaamu giñ koy jaamu suñu yenenti yàlla mu nekkoon jaamam ba mu yónni ci ñun ngiree mu xamal ñu naka lañ koy jaamu ñu ngi ñaan yàlla yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ilaa yawmi diin gannaaw loolu mbokk jullit suñu boroom subhanahu wa taala day nee na maa leen defal ci seen bakkan ay woy dencante bu dee góor ña maa leen wutal ay soxna soxna ya maa leen wutal góor yu ñuy àndal gannaaw loolu it ma génne ci yéen ay doom ak i sët ba pare wërsëgal leen ci yu teey ndax nit ñi dañuy wëlbatu ko gëm ay neen xéewalu yàlla ñu bëgg ko weddi loolu mbokk suñu borom tudd xéewalu yàlla dëkkate bokk na ci xéewal yu rëy yu yàlla di defal ab jaamam mooy mu may ko doom doom joojee nga xam ne moom mooy a denc bi gën a rëy bu doomu aadama di am adduna ak àllaaxira soo ko sàmmee jaare la ko fa neex ka la ko dénk muy suñu borom. mu wëlbati ko nekk ci yow yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira boo ko sàgganee suñu borom wëlbati ko ci yow mu nekk mbugalu àdduna ak mbugalu àllaaxira looloo tax yéeféer yi nga xam ne jaarale wu ñu seen jabar fa neex yàlla suñu borom mu ne seen alal yi ak seen doom yi bu mu la yéem yàlla da leen cee bëgg mbugale ci àdduna ba ñu dee yàlla seen kéeféer googee waaye awalan yow mi nga xam ne yaa ngi yéene am njaboot gu baax ngal la way xamal ne njaboot gu baax sabab ba ca jiitu mooy nga daal di wut ka ngay àndal doon ko baax mooy ku góor ki heure buy wuti njaboot gu baax ngal la way na xam ne ma ngay meññe ci soxna soo xam ne soxna su baax la waaye yow soxna si ëllëg bëgg njaboot gu baax te njaboot gu baax mooy njaboot gu ànd ak ngërëmal yàlla jëri nga jëriñoo ko àdduna ak alaaxira nga la waaye soxna si tànnal góor goo xam ne nii day doon góor gu baax ca muy am diine ak jukko yu rafet suñu borom subhanahu wa taala gis nañu bi muy tagg jaamam yu baax yi bokk na ca ñaan yañ ko doon ñaan muy ibaadu rahmaan ey yàlla yal nag ñu may suñu xol sedd ci suñu soxna yi suñu xol sedd suñu borom kër yi avant ñuy wax suñu xol sedd ci njaboot gi ndax lu ci bëri dana jafe lool nga am soxna sa xol seddul ci moom ba pare sa xol sedd ci njaboot ga waaye en général su dee soxna sa sa xol sedd na ci moom ca lan mooy saral xolub julit mooy mu gis ne soxnaam déggal na yàlla déggal na ko ca la yàlla subhanahu wa taala terewul mbokk ñu mel nii da ngay gis dañoo jiital soxna ya looloo tax képp koo xam ni da nga xam responsabilité njaboot doo bàyyi bañ judd nga doog a taxaw ci ñoom bal la ngay jëkkee mooy la góorug arab ga waxoon njabootam njekki day xam ngeen ne defal naa leen ko ñu ne ko waaw koy bàyyi mun a njekki gëma leen jëkk a defal mooy ba ma leen tànnalee yaay ju baax loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax amma yow yaay ak baay su leen yàlla wërsëgalee doom xam leen ne da ngeen a war a jàppale teel a jóg ci moom ci jamono ja nga xamee ne nii moom la nekkee xale góorgóorlu jéem a suuxat ci moom la nga xam ne mooy diine ak xam-xam ak jikko ju rafet loolu moo tax ba fan yi ñu toll mbooleem parents d'élèves yi nelawatuñu ci ay inscription ci ay fourniture ay paasi xale yoo xam ne sonal na leen lool gàllawaay mbokk jullit xam leen ne day jël sa doom jàngal ko àdduna lool day lu baax la ndax àdduna benn wàll la ci suñu dund ñu fexe ba am luñ ci jàpp lu baax la waaye nag ndax loolu moo war a nekk sa jubluwaay kese ci sa njaboot déedéet mbokk jullit islaam day gisewul noonu islaam moom daa gis ne njaboot gi yar bi ñu leen war a yar ñaari laaf la war a àndal laaf ba gën a am solo mooy fa ñuy jaare la njaboot gi ba ñu xam seen boroom ba xam seen diini la ca des c'est secondaire muy beneen laaf ba xam ne mooy tax ñu xam la nga xam ne mooy seen àdduna loolu moo tax ba xale bi dañoo war a teel a jóg ci moom ci wàllu diini tey jii bokk na doomu aadama yi li ñuy seetlu ci ñoom mooy la ñuy gën a ittewoo di ca jàppanteeg seeni doom mooy lu jëm ci wàllum jàng waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne seen doom yi day bu ñu amee juróom-ñaari at digal leen ñuy julli taxawu leen ñuy julli waxtu julli juróom heure bu ñu demee ba am fukki at nanguwuñoo julli sax na ngeen leen duma ca teqalee leen ca la nga xamee ne ni mooy lal ya ngiree ay jukko yu ñaaw ba ñu dugg ci ñoom mbokk lii mooy li ñu suñu diina sant loolu nag mbokk jullit xam leen ne bokk na lu gën a jafe mooy yar xale ndax résultat ba cay jóge mooy résultat bi gën a rëy bi ngay am loola taxit yoon ba metti lool jafe lool yar xale ba teg ko fa neex yàlla mbokk loolu yombul la gën a yomb mooy bàyyi xale bi rek ci bànneexu bakkanam nga liibar moom mu liibar donte ne résultat ba musiba la waaye amma yow way jur xamal ne doom joojee moomoo ko ndénkaane la bu la yàlla subhanahu wa taala dénk sàmmloo la ko te yowmal qiyaama da nga ñëw suñu borom yàlla laaj la ko loolee nga xam ne dénkoon na la ko loolu nag mbokk julit dafa laaj ñu góorgóorlu jihaad bokk na jihaad yi gën a màgg mooy jihaad ak njaboot gi ba jubbanti pas-pas yi ba jubbanti jukko yi xiirtal leen ci jàmm yàlla dox seen digganteeg lu bon aka jafe woon jamono yonent ba aka jafe woon sunu jamonoy maam waaye aka gën a jafe sunu jamono yi tey ji jamono ji nga xam ne mbokk jullit fitna yaa ngi tasaaroo ci mbedd mi fitna yaa ngi tara tasaaroo ci lekkool ya bal fitna yaa ngi tasaaroo xatta ci biir kër jullit ña fa nga xamee ni nii fa lañ mënoon a muccee sunu maam yi daan téye seenu njaboot bul dem place sangam bul génne place sangam tey la sunu maam yi daan tere njaboot ga dem fa moo fekk si sunu biir njaboot yi ci biir kër yi ci bi ñu yàlla subhanahu wa taala nattoo la nga xamee ni nii mooy seen àndandoo bi gën a jege yonent bi alayhi salaam daana wax ne koo gis rek mi ngi ci diine yi ka muy àndal ku nekk ci yenn na xool ku muy àndal sunu maam yi daan insister lool ci seen njaboot ñu xool ñan la ñuy àndal waaye mbokk tey kan mooy àndandoo suñu njaboot àndandoo suñu njaboot tey jii mooy portable àndandoo suñu njaboot tey mooy whatsapp àndandoo suñu njaboot tey mooy youtube ak tiktok àndandoo suñu njaboot tey mooy la nga xam ne ni mooy facebook instagram àndandoo suñu njaboot tey mooy xalaat yooyu nga xam ne mooy jóge occident yii ma leen limal yépp amu ci benn bu ab jullit defar yii yépp ay yéeféer ñoo ko defar de un ay yéeféer ñoo koy contrôler de deux ay yéeféer ñoo ko tasaara ñoo ko yombal suñu mbokk jullit ngir la nga xamee ni nii mooy guerre culturelle internationale boobu nga xam ne décrété nañ ko looloo tax ba sunu bàyyee buñ daan fagaru benn ñun war nañoo fagaru fukk war nañoo takk suñu ndig góorgóorlu di wax ak njaboot gi jege njaboot gi xamal leen danger bu mag boobu nga xam ne tey moo nekk ci seeni loxo ca mooy loolu nga xam ne mbokk mi portable loolu nag mbokk dañoo war a góorgóorlu jëfe ndigalu yàlla jalla wa ala suñu borom yàlla mu ne ee yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm na ngeen fexe ba fegal seen bopp ak seen njaboot lii nga xam ne mooy sawara mbokk lan mooy sawara borom bi nee na boo ngeen demee malaaka yu tar ña nga fa du ñu mooy yàlla ca lu leen yàlla digal ñu def ko loolu tax ba nga la way yu julit góorgóorlul nekk royukaay bu rafet sa kanamu njaboot jiitu leen ci jaamu yàlla waaye taxaw sa kemtalal kattan bépp yoon boo xam ne yoonu sawara la nga dox sa digganteeg ñoom ca loolu ca loolu bokk na ca di leen yee ci danger yooyu nga xam ne mooy jaare ca portable yooyu ca ba ca gën a màgg du yey jàngale nguur jigéen ak njaaloo yey jàngale agression waaye la ca gën a màgg ya nga xam ne day màbb ay pas-pas ay nit ñoo xamee ni ni ñu ngi woote ay ndaje ndaje yoo xam ne lañ fay def yëkkati seeni baay ak seeni maam jël yàlla teg de côté bal suufeel yàlla bal suufeel sax yonent yàlla yi yëkkati seen bopp yëkkati seeni maam seen doom yey diglu loolu ngalla waaye woo leen leen xamal leen xam leen na loolu buñ ca tabbee mooy alkaange bi gën a rëy boo xam ne bu tabbi ci ñoom loolee ñu bàyyi ci xel bu baax ngalla waaye mbokk jullit xam leen ni suñu borom yàlla bi mu ñuy jox njaboot joxuñu ko woon pour ñu nekk des ingénieurs ou bien des médecins joxuñu ko pour ñu nekk des milliardaires suñu borom dañoo joxoon njaboot gi ngir njaboot gi jaamu yàlla wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci ni bépp doom boo xam ne yaa ngi juddu yaa ngi juddoo ci mbaax yaa ngi juddoo set wecc say waajur kay ñooy saggan ba nga wëlbati ko nekk ab juif wala ab chrétien wala ab athée majuus loolee mbokk ñu góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax ca xam ne njaboot googee day dañ leen war a teete ngiree ëllëg ñu am la gën a màgg doctorat ñu am la gën a nekk màgg ay professeur am la gën a màgg màgg des scientifiques am la gën a màgg nekk des milliardaires ca loolu mooy lan suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ñinga xamne day fexé nañu ba gëm yalla tété seen njaboot ci ngëm yalla njaboot googu topp leen ca alaxira ka gën a kawe daraja ci ñoom ci àjjana foofu laa leen di yóbbu ngeen dëkke fa ay yow baay yow yaay xamal li gën a màgg doctorat gën a màgg expert mooy ngay fexe ba ëllëg ci sibir su yàlla dajalee nit ak jinne malaaka daa di woo sa doom jooju ne ko ana fatima wala ana muhammad malaaka yi escorté ko keral ko ci keru arsh loolu la yonente bi alayhi salatu wasalaam ba muy wax naan juróom-ñaar yi yàlla di keral yowm alqiyam wa shaabun nashaa fi ibadati llah ak koo xam ne bi mu nekkee xale la commencé loolee nga xam ne mooy jaamu yàlla nga la waaye góorgóorlu leen ci loolu dépense yi ngeen ñi def seen njaboot jubluwaay ba ca gën a nekk ba ca gën a màgg na doon maa ngi dépensé sama njaboot gii ngir ñu nekk jaamu yàlla yu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko waaw alal ji ngay dépensé ci ñiy jihaad alal ji ngay dépensé ngir goreel jaam alal yi ngay dépensé ngir jox miskin yi ana ban alal moo ci gën mu ne alal bi ngay dépensé ci sa njaboot loolee kon yéen way jur yi fourniture yi ngeen di jënd paas yi ngeen di joxe fay yi ngeen di fay loolu lépp da ngeen ko def ihtisaab waaye ngir lan ngir am ci ngërëmal yàlla noo koy amee mooy yéene xale bi ëllëg ki si biir doon jaamu yàlla buy jëriñ jaami yàlla yi ci yàlla tax lii rek mooy tax loo ca mën a dépense mu néew ak a bari suñu borom yàlla dana la fay loolu mbokk njaboot mi ngi nii mooy lu gën a màgg ñu góorgóorlu roy yenent yu jëkk ya yenent yooyu nga xam ne xam nañu ne malgré effort yi ñuy def yàlla moom mooy tànn yàlla mooy jegleel moo tax ku mel ni ibrahim alayhi salaam avant muy am njaboot la ñaanoon yàlla rabbi habli min as-salihin ay yàlla yàlla na nga may njaboot gu baax looloo tax mboole mi yenent ci njabootam lañ génne gannaaw loolu yaa ngi dégg li ñu waxoon sànq ci ibadur rahman mooy dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala may leen njaboot gu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne heure boo xamee ne nii doomu aadama bi faatu na na xam ne mboolem ay jëfam suñu borom yàlla dana ko dagg ba mu des la nga xamee ne nii mooy sarax ba mu joxe woon muy wéy gannaawam xam-xam ba mu jàngale woon ñu koy jëriñoo ak doom ju baax joo xam ne ma ngi koy ñaanal mbokk ndax yonent bi daa wax doomu architecte wala doomu médecin wala doomu milliardaire déedéet wala doon saalix yadu lahu doom ju baax ju ngëmam sell ay jëfam sell muy ñaanal ay waajuram loolu mooy la gën la ngay bàyyi sa gannaaw mbokk njaboot googu yàlla da leen a sant heure boo xamee ne ni dañuy ñaan di jéggalu ñu boole ci seen waajur rabbi xfir li wali walidayya loolu moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne day bokk na ci lu mu ñuy nettali benn waaye dina ñëw yowmal qiyaama gis ñu yëkkati ay darajaam ci ajjana mu ne waaw yàlla lii day bokkul ak sab liggéey lii fan la jóge mu ne ko lii mi ngi jóge ci doom yu baax ya nga yaroon ñuy nekk di la ñaanal sa gannaaw lii nag mbokk julit tey jii école baa ngi nii ubbi na lu bari ci doomu aadama yi njuumte bi nga xam ne dañ koy def tey mooy jëkkante ak njaboot gi bu jëkk ba tubaab bi dog ñu indil école en général ay sept ans lañu fa daan dem ñu jël seeni doom yóbbu daara gannaaw ba sept ans ñu yóbbu leen tey nag da ngay gis ñoo xam ne ni crèche la ñuy commencé xale bi ba muy nàmp la commencé dem l'école dem jardin maternel jóge fa CI continuer continuer ba baa muy am bac loolee mbokk di musiba bu rëy boo xamee ni nii la ca tegee mooy lu ëpp ci ñoom la nga xam ne moom la ñuy jàpp ne mooy dëgg dëgg dëgg réussite mooy sa doom bu amee bac na génn réew mi waaye ñu ñàkk pexe dong wala jàpp ne ñoom day dañoo amul nangam ñoom ñooy xalaat seeni doom jàng ba pare naan dañuy toog ci réew mi waaw mbokk doom boo xam ne ni amagul vingt ans wala juste vingt ans nga jël ko sànni ko Canada wala sànni ko New York wala sànni ko France mbokk ko mel nii te musul jaar fenn foo xam ne nii fa la jàngi diineem nar a dem ci biir ay yéeféer lan nga yaakaar ci moom lan nga mën a yaakaar ci moom damooy alal waaye ndax yaakaar nga ci moom diina ju baax ndax yaakaar nga ci moom jukko ju baax alal jooju nga yaakaar ci moom kan moo lay xamal na da nga ko jëriñoo même bu dee moom réussir na ku lay xamal ne da nga ko jëriñoo loolu moo tax ba nga la waay nañu delluwaat suñu borom bi mu ñuy indil alxuraan indi woon ko pour ñu koy jàngal maam yi ak néew yi dafa ñu koy indil ngir ñu koy jàng di ko topp yonent bi alayhi salaam mu ne waskur fi lkitaabi ismail innahu kaana saadiqa alwaad wa kaana rasulan nabiya wa kaana yamuru ahlahu bilsalaati walzakaati wa kaana inda rabbihi mardiya suñu borom mu ne ay waay de leen bàyyi xel ismail ma nga xam ne mooy ko dëggu woon dëggu ko weesuwul ci bàyyam yar ko ci diine ba keroog ba muy toll à peine ay treize ans quinze ans baay bi na ko sama borom nee na ma rendi la mu ne ko bàyyi kaay def li la yàlla sant danga ma fekk ma bokk ci ñi muñ kookee ba mu demee ba am njaboot daa taxawoon ci njaboot gi ngiree ñuy taxawal julli di joxe zakat waaye ay yow mi sànn say doom bitim réew ndax loolee da nga ko taxawal sa njaboot suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa di wëlbati ko waat ñeel jullit ñépp daa di ne wamur ahlaka bilsalaati wastabir alayha laa nasaluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu li taqwa ay waay fexe leen ba seen njaboot gi ngeen xamal leen lan muy julli teete leen ci ñu julli ca bokk na erreur bu garaaw mooy julli jot nga fëgg xale yi ne leen julli leen ca xamuñu lu ñuy jullee xale yi fokk ñu jàngal leen téere borom bi fokk ñu jàngal leen naka ñuy jullee gannaaw ba xiirtal leen ci julli suñu borom yàlla nag ne xamal ne man laa du ma la wërsëgal man maay wërsëgal ay yéen mbokk jullit erreur bi quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci nda ci jullit yi tey def jàpp nañ ne seen doom pour mu réussir il faut mu réussir cam njàng ngalla waaye kenn ci yéen bu delloo koñom ba mu dëkk na xool mboolem immeuble ya ko fa wër maa ngi seede ne quatre-vingt-dix pour cent immeuble ya ñaka moom mosuñoo teg seen tànk université xoolal tous les grands commerçants yi nga xam ne ñoo yor commerce réew mi waatal ne quatre-vingt-dix pour cent ci ñoom mosuñoo teg seen tànk université xoolal ñu yor transport xoolal ñu yor lépp loo xamee ñu ni tey moo tax réew mi dox quatre-vingt-dix pour cent mosuñu teg seen tànk université kon wërsëg nekkul ci l'école wërsëg ci loxo yàlla la nekk école sabab la ci sabab yi na am mën nga caa jaar sa ko fa wërsëg waaye bi charte mooy bu mu nekk mukk lu yàq diine bépp sakku wërsëg boo xamee ne nii yaa ngi koy jaar ca mu sàggane sa diine perte nga à l'avance mooy boo ci amee àdduna perte nga boo ci amul àdduna perte nga ñaari yoon loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee ñu góorgóorlu waat ci njaboot gi tey jii lu bari ci njaboot gi lu bari ci parents yi da ngay gis koo xam ne sonn na lool ci doomam école yi gën a kawe lay wër ba xatta école chrétien yi fu école chrétien làqu su jàppee ne sama doom bu ma ko fa yónnee mu réussir jaral na ko loolu fayta lu cher waaye bàyyi boobu laaj ko ndax jàkka ji nga dëkkal muy néegu bu yàlla bii ndax mas ngaa teete sa njaboot dugaleen ca jàkka ja ndax mas ngaa teete sa njaboot dugaleen ca jàkka ja e waaye mbokk jullit xam leen ni jàkka mooy école école yi jàkka mooy école bi ëmb àdduna ak alaxira jàkka mooy centre de formation bi nga xamee ne nii njaboot gi dañ leen faa war a yóbbu mu jàngal leen tarbiye bu rafet mooy dal gu rafet ñëw ci jàkka ji daja fa ak seeni baay seeni moroom seeni rakk ñépp nekk en rang gannaaw imam ñu jàng alquran ànd rukkoo ànd sujud bëggante soppante lii mbokk lu rëy rëy rëy lay def ci biir njaboot gi gannaaw ba jàkka yooyee dafa war a nekk jàkka occasion jàngale xam-xam malheureusement quatre-vingt pour cent jàkka yi am léegi seen rôle joué tuñ ko waaye ala kulli xaal jàkka ji dañ faa war a jàngale téereb yàlla bi jàkka ji dañ faa war a jàngale fiq dañ faa war a jàngale lan mooy melokaanu borom bi dañ faa war a jàngale ay ibadat ni ñuy jaamoo yàlla su ko defee l'école des écoles université des universités mooy la nga xam ne mooy néegu borom bi ñu góorgóorlu miinal ko suñuy doom bëggloo ko suñuy doom bañ màggee ci loolu tubaab yi dee xam nañ ko tubaab yi gis nañu ne boo demee en Occident ñañ fay gën a indexé naan c'est des extrémistes ñoo dun ñooy taral l'islam mooy dañ naan ils ont grandi sur l'ombre des mosquées mooy ñi nga xam ne dañoo génne ci jàkka yi loolu moo tax ba yow bàyyi rusal di investir ci sa doom di ko jox ay paas di ko yóbbu fa sore sore sori ngiree muy daw di dàq gannaaw àdduna te la nga xam ne muy diineem yëgoo benn effort benn coono boo xam ne def nga ko ngiree xale boobu dellu ci boroomam ngiree xale boobu xam la nga xamee ne muy boroomam ay yow bàyyi xamal ni la nga xam ne moom ngay góorgóorlu ci jaamu yàlla ci njaboot gi sa bopp rek nga ko defal sa bopp nga ko defal suñu borom yàlla ko maandu na nee na ay yéen njaboot gi bu ngeen leen ñaanal seen waajur xam nga li ngeen di wax rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira saghira ay yàlla yàlla nga yërëm samay waajur ni ñu ma yare woon bi may xale yar boobee bu doon yar la bu ànd a ngërëmal yàlla yërmaande yàlla ju mat sëkk ma nga lay xaar yar boobee bu jaarul woon fa neex yàlla ca njaboot gi nee nañ yàlla yërëm leen niñ ma niñ ma yare woon ca yow jaarale woon fa neex yàlla mooy musiba ma lay xaar su ko defee loolu ku nekk ñu bàyyi ci xel suñu kemtalal kattan taxawaat mbokk julit jaamu yàlla yi gi gën a màgg taxawaay bi gën a màgg mooy nañu fexe ba ñun ak suñu njaboot ñu dellu ci yàlla yaakaar ci yàlla yàlla ay digam du deñ nee na wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib képp ku ragal yàlla xat-xat jafe-jafe yi ngay dund yàlla mu ne danaa la ci génni te danaa la wërsëgal foo ko foogewul woon fexe leen seen njaboot xam yàlla fexe leen seen njaboot ragal yàlla booy dee texe nañu booy dund ak ñoom texe nañu lii mbokk mooy la nga xam ne nii ñi nga koy fàttali suñu bopp ci ouverture yi école bi naam parents yi sonn ngeen de waaye coono boobu yàlla na ko yàlla nangu waaye fexe leen ñu sonn sonn bu mel noonee ngiree njaboot gi xam seen boroom dund la nga xam ne mooy seen diine boroom yal na yàlla wërsëgal suñu xol sedd ci suñu way dencante yi yal na yàlla wërsëgal suñu xol sedd ci suñu njaboot yal na yàlla xamal suñu njaboot li nga xam ne mooy seen diine yal na yàlla bëggloo leen la nga xam ne mooy seen diine yal na seen diine gënal lépp luy àdduna ak li ci biiram yal na yàlla taaral ngëm ci suñu xol yal na yàlla yombalal luñ naka nañ koy jaamoo bëggloo ñu la nga xam ne muy julli bëggloo ñu la nga xam ne muy zikrullah yal na yàlla subhanahu wa taala boole waat suñu xol musal ñu ci yàqkat yi nga xam ne ñooy yàq pas-pas yi musal ñu ci yàqkat yi nga xam ne dañuy yàq jukko yi yal na yàlla yëkkati képp koy wootee lislaam yal na yàlla dooleel képp koo xam ne day taaral lislaam اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين